du di 3 euh, mai pendant du 30 mai au 3 juin association Managerie yi dañu amoon benn projet depuis Nak yagana na bu conférence internationale des managers et entrepreneurs culturels ñuy dem di dem di dem ba moment ñu gis le projet bi mun nañ ko gën a jëmmal wala muy juste une journée de rencontre wala benn wala deux jours trois jours dañ ko une semaine de travail pour xam ne du rek panel ci lañ xalaatee ak suñu partenaires yi nga xam ne xam nañ leen un peu partout parce que xamoon nañ leen ci ay liggéey yeneen yu dul yi mais lépp ci domaine du management mais ci yeneen dëkk ay festival yu ñuy tase wala ay rencontre professionnelle ñuy waxtaanee idée bi ci lañ am xalaat ne nañ def semaine bi la dernière fois Massa bi passé euh, association AMA dañ ko invité woon dafa bokkoon ci euh, organisation yi ñu invité woon biñ fa demee nag yàlla def nag ñu am chance ñu ñëpp ñu mënoon toog waxtaan waxtaan boobu nag moo jur lii mais avant ñuy waxtaan foofu dañu créoon Ama dafa créoon benn groupe WhatsApp boo xam ne pratiquement ñi ngeen gis ñëpp dëkk yu bëri tamit dañ fa dajawoon ñu ñëpp ñuy waxtaanee événement bi ci biir waxtaan boobu ci lañ gisoon ne affaire bi jotoon na pour ñu teg ko yàlla may ñu nag chance ñu dem euh, Massa toog foo waxtaanee ko ci lañ ko tënkee fekk boobu association bi jàppoon na dal bi nii ñu jël activité bi nii dugal ko ci biir activité Ama bi loolu moo tax ñu def semaine bi semaine bi nag li ko li ko muum li ko moo ko junj moo mooy fexeba ba créer benn réseau professionnel yo xamné ne dañuy mënd di liggéey ensemble tout le temps parce que bo xolé bu baax té lolu constat wu yeen ñi nek ay nek homme de média professionnel yëpp am nañ ko bo leen xolé bu baax même si là dans la sous-région ci souf festival dafa gën di wàññeeku té des fois aussi benen situation bu compliqué moy des fois da ngay gis boy organiser difficulté charge yi dafa L'événement c'est le coûte énormément cher da ngay gis jafé jafé yi fay bëri té groupe yi africains yi d'habitude amuñu ay groupe yi ndaw groupe yi dañuy bëri ay nit yooyu yëpp day nekk ay contraintes yu ñuy dund te ñun les managers ñoo nekk au cœur donc tey boo waxee événement boo waxee artiste boo waxee créateur rek wax manager donc ñun ñu ñun ñoo ci gën a impacté parce que ñun ñoo nekk au cœur ñu ne ñun nan la xool ba gën ko organiser te comme ñun ñëpp xam nañ ne artistes yi am nañ ay potentiel Afrique moom artistes yi am nañ potentiel donc opportunité de marché yi ni ñu koy saisir moo compliqué parce que problème yi dafa bëri booy wax ak ku nekk Mali li ngay wax la même chose Cameroun ainsi de suite ay Côte mais ñëpp donc dañ toog ñu waxtaan mais nag li ci li ko rafetal mooy koo ci waxal ci ñoom dañ ngay da ngay dégg da ngay gis ne yow ñoom yaa leen bokk li ngeen di wax li nekk problème ci yow moo lay problème ci ñoom donc d'accord woon nañ ne ñun ñëpp dañu war a toog waxtaan ñun ñun Sénégal nag ñu oyofal leen ko peut-être Ama aussi moom gëm ko nekk ko fi di calculer metti woon na trop trop trop trop difficulté yu bëri woon na mais dañ ko gëm ba tey yàlla def ñu def ko donc ñi ngi sant yàlla ci loolu di sant di leen remercier di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo ñëw ci activité bi nga xam ne tey lañ koy jeexal liggéey bi nag yemul tey dañoo dañoo arrêté session de travail tey parce que budget bi dafa metti woon te attan attanuñu tu ko woon parce que li ñu yaakaaroon yëpp jotuñu ko dañuy arrêté travaux général yi tey suba ak gannaaw suba amaa am na siège boo xam ne mi ngi nekk Sacré Cœur 3 nañ fi salle formation bu mag salle boobu la ñuy dem invité leen fa ñoom ñu ñëw ñu yeggali travaux yi foofu ñun ak suñu communauté amee yi comme ça balaa ñuy génn foofu ñoom ñuy ñibbi entre samedi dimanche lundi dina fekk liggéey boobu yëpp ñu tënk ko ci ay këyit nga xam ne ñoom bu ñuy dem dañ koy yóbbu wala bu ñu demee pare ñu yóbbante leen ko ñu mun ko partager ak professionnels nekk en Afrique et dans le monde. ministère moom jàppale nañu je mën naa ne sax moom mooy partenaire bi nga xam ne moo si jàpp dëgg moom moo si jàpp moom moo fi nekk amul kaneen le nañ ci ñeneen ñoo xam ne délai bi ñu wax gàtt na ñii nee nañ problème mu budget nee nañ xam nga rek Ah, excuse yi day bëri yooyu moom tàmm nañ ko dégg Sénégal ñun ay professionnels yag nañ fi ñun def nañ ay plus que 27 ans de management xam nañ secteur bi légui numuy doxé on va juste eh, se dire que dem nañu amuñu mais je pense que tay wan nañ leen leen am amna mais amna na njëriñ ñu jàppale ñu parce que ku xol li fi nekkoon diggante ci 3 jours yi di nga xam ñun defuñu li pour fo defuñu ko pour buzz ay waxtaan lañ fi def ay atelier de travail ay xam-xam lañ doon échanger te xam-xamu échange yo xam ne dëkk ak dëkk dëkk la je pense que dafa jara encourager parce que dëkk bi légui monde bi sax ci boppam mo laaj nit ñi di waxtaan pour xol na la trouver ay solution mais aussi di proposer état bi loolu lay def ak yeneen dëkk bu donc war na mën a comprendre acteur culturel di dem ba commencer di xalaat nu ñuy waxtaanee suñu biir ministère de la culture moom daf ñu jàppale benn partenaire aussi lañ fi am boo xam ne daf ñu jàppale financièrement muy ITTE ñu ngi rafetlu aussi loolu parce que tamit jàpp nañ ne peut-être loolu aussi dina tax déwén bu ko bëggee defaat ñoom ñëpp ñu gis ne aaw ah, jar jàpp incha on espère que dañ koy defaat bu baax a baax taxaw nañ ci pour defaat ko bu ñu génnee ci lii nañu def dañ def bilan bi bu ñu paree ci bilan bi ñu lancé waat projet bi teel maa ngi gis tooñante yi ku nekk di wax man gisuma sama bopp parce que mënuñu xam ñëpp xam nga Sénégal aussi dafa boo leen xoolee ñi ñu ci def ñun dañu reconnaissant par rapport ak ñi ñuy jàppale hmm. may remercier di remercier une personne boo xam ne moom moo mobiliser média bi tey mu nekk rek day ci jëlloo njukkal la da ngay gis sax dañuy ñëw say événement wala nga woote parce que ñun dañuy partager rek mais da ngay gis koo xam ne que partenariat bi ñu def tey mais nan la ñuy def ba ku nekk gis ci sa bopp ñu mën a liggéey liggéey bu professionnel lañu bopp parce que ñun ñu bëgg mooy professionnaliser secteur bi comme artiste mënul dem ak sans média donc ñun te manager mooy nekk ci diggante bi il faut ñu defar diggante bi juste pour wax ne leen ñun dañu respecter média yi bokkoon na ci événement bo xam dañ ko pousse le 3 bi dañu waroon def pour la première fois ben dîner dîner de gala bo xam dafa waroon am ay award pour la première fois ñu primer ay manager moy manager yi nak ñi nga xam nak nag ñoo wane yoon bi parce que bala nga wax génération bi da ngay wax métier fi mu jógee ñu génération ñu Youssou Ndour ñu ñep xam leen mais xamu ñu ñi leen manager mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi xam leen te xam liñ fi def dañ leen wara a manager dañ leen wara jox ay prix te loolu dañ ko repousser pour liggéey ci beneen façon bo xam ne niñ ko doon def mu simple bi paa dañ koy def mu nekk événement bu reuy comme corridor bi lañ ko bëgg def dañu bëgg mu nekk comme image yu corridor incha allah dañ koy song du yàgg dara bu ñu paree rek dañuy dem ñu dem waxtaan ñoom ci nan lañ koy defee mu nekk événement mel ni comme corridor et puis muy am chaque année. mais pour wax la ñun ni kon kii ci prix yi ñu prévoir dañu prévoir média yi parce que manager yooyu bi ñu fiy nekk dafa woon ay hommes de média yu fi nekk comme ay Maguette Wade musique traditionnelle tey bu ñu xamee ay Kiné ñoom moom la am na ñu mel ay Michael fi nekkoon donc ainsi de suite pour bañ wax turu ñep ay ay Moïse Ambroise Gomis ñoo ñep dinañ jot ay prix té loolu la motax c'est parce que dañu baye xel presse bi média yi suñu ay partenaires lañ li ñuy def mënuñu def ñun ñokay koy defandoo ensemble. donc ñun gëm nañ né partenariat bu win-win la moo tax incha na ci li ñu war a defaat xool bëgg nañ sax panel yo xamné dañuy ñëw tok ñun ak yeen ñu waxtaan parce que incompréhension bi aussi da fay am. ak aussi ñàkk xam nan ngay tegee sa tànk boo bëggee approché média wala yooyu te yooyu bu ñu yoree ay manager da nga leen di former ci lépp te loolu aussi bokk na ci concept table des muy projet de formation boo xam ne mi ngi ñëw juste rek c'est ma manière à vous de vous remercier d'être là non ñun ñoo ko bëggoon jël ba pare ñeme dëgër fit ñun ñoo gën a dëgër fit parce que ñëpp ñam nañ ko xalaat nañ ko gis diisaay bi bàyyi ko ñun ne noo dañ koy dem parce que nag la chance que j'avais na ko bokkoon na tamit ci suñu projet ñom dañ ko bëggoon mais ñun dafa bokkoon suñu projet mais troisième argument bi aussi c'est parce que amon nañ ay nit de valeur yu nekk suñu accord bëgg ci jàpp ba paré ñu am ministère bo xamné ñun suñu association je le dis haut et fort ñun dañuy ñun dañuy liggéey chaque jour ñun duñ tok 2 wala 3 mois duñ def activité loolu aussi dafa dem ba tax ministère de la culture daf ñu daf ñu daf ñu bayyi xel bàyyi xel bobu aussi bokk na ci li ñu oyofalal lu bari grand théâtre aussi daf ñu permettre parce que grand théâtre bu doon dañu ñëw fi budget bi ñu doon wax ñu dem ak ñom ci budget bobu duñ ko mën def mais ñom dañu gis ne projet bi intéressant na ñom ñu jël ko grand théâtre ñom dañ ñu non seulement dañ leen jox espace bi ngeen def mais buy amaat dewen ñun ak yeen ñoo koy defandoo xam nga loolu rek dafa rafet donc loolu yëpp permettre na li tax ñu mën ko def à Dakar au lieu de le faire dans d'autres pays accueil bi Waouh, waouh, yomb na yombul xam nga Sénégal il y a un mooy indi problème C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas tout le budget mais quand même on a été aidé même si on accueillir gars au départ gars comprendrait ci confiance en nous, et plus tard on a pu payer et c'était bien Alhamdulillah. Nous remercions remercier toute l'équipe qui a travaillé déjà.